yéen ñi xam-xam itéel ci seen jotaayu kàggu mag ñi di dox ci wàllu astraar ak pajum cosaan ak aada fii ci jàmm ji info point net kon nag bu ko kenn wuti jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info di leen jaajëfalaat saa su ne ànd bi ngeen ànd ak itam suñuy euh, programme tey nag mu mel ne dañuy dellusiwaat nag yaakaar naa dootuñu leen ko présenté di soxna Mame Waly Diagne borom Ndakaaru ak euh, Cap Vert di ko santaat bu baax a baax a baax waaye tam di leen fàtte tam résidence bi nga xamante ni rek ci diwaanu Pikine ginnaaw raay mbokk yi duñ ci sole dañ koy daal di jox kàddu gi saa suñu soxlaa rek ci wàllum actualité daañu mën a toog ak moom soxna Mame Bouleye Diagne borom Dakaaru Cap Vert asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam sëñ Mountakha maa ngi lay nuyu di la jaajëfal waa di nuyu waa jàmm ji info yëpp macha allah waa di nuyu waa Sénégal yëpp tamit waa di gërëm sama ñaari waajur bu wér jërëjëf soxna Mame Waly Diagne borom Dakar ak Vert mu mel ni say génn daana sax am tuuti euh, distance waaye li ko waral bu ñu gisee ni actualité saa su ne dafay am euh, du ñàkk ñu ñëw tàll sunu micro itam nga wax ñu ndax réew mi nga bokk euh, benn bi dañuy njëkk rek ci waxtaan bi nga xamante ni tey ci mbiru Ousmane Sonko Adji mel ni ay jamono yëkkati woon nga fi kaddu jamono ji nga xam ne ñoo ngi woote mbirum confrontation waaye léegi dem nañ ba tudd mbirum procès soxna Mame Waly Diagne borom Dakar mu mel nii fu mu nekk ni xel yi commencé naa tey xel yi commencé naa jaxasoo Euh, ndax bu ñu fàttalee la ko li ci gannaaw bu ñu sañoon lépp tey mën nañu wax mbir mi dañuy gas lépp suul denc ko jàmm amaat euh, waaye tamit tey fi ñu toll nii ci wàllum li nga xam ne moo di procès yan kàddu nga ci yëkkati tey. waaw sëñ Mountakha ah macha allah li nga wax noonu macha allah dëgg la ah di wax tamit eh, procès Ousmane Sonko Adji Sarr man daal su ma sañoon daal ñu ñu ñu ñu woote jàmm ndax àdduna jàmm fi xaj. di tamit di wax tamit comme ni ma daan waxee rek ne suñu njiitu réew mi nañ nañ boole yëpp ñu dalal ko maanaam nañ nañ nañ bàyyi affaire mu sedd waa diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko nag moom comme ni koy waxee rek diggante góor ak jigéen la dañ ci wax rek luñ ci war a wax mais daal man daal lu ma bëgg mooy jàmm ndax fi mu toll nii procès bi taxaw na euh, Sénégal ku ci nekk di nga jéem a naan da ngay yëngooti surtout ma jeunes yi te nag lu ñu lu ñu jaar fan yi passé rek dafa metti kon nag nañ woote jàmm waa tey ñaan it euh, Ousmane Sonko moom it mu woote jàmm ñuy wax Macky Sall tam mu woote jàmm jàmm daal moom mooy mooy lépp man nag wax dëgg yàlla duma ci sori mais nag daal jàmm daal laa bëgg te it di wax ni euh, diggante euh, Adji Sarr ak Sonko daanaka bañ koy wax ba tey dafa yàgg seen histoire bi dafa yàgg léegi nag li solution bi mooy nañ ko lépp nañ ko nañ ko nañ ko def ci jàmm daal ndax Sénégal nag ah jàmm fi xaj de waaw man daal loolu laa gis mu taxaa xaw ma nag leneen mais daal jàmm daal mooy mooy lépp tey nag moom xaj na ñu ngi woote ay conférence de presse xaw ma je ne sais tey nag fi may ñëw ci côté Sonko gis nañ tey mbirum wax nañ li nga xam ne moo di procès waaye tey am na li nga xam ne moo di meeting ba nga xam ne war na ko def tey jamono gi ñu wax ak nii nii eh, jamono jii eh, Sonko ngi Kër Massar mu mel ni mbooloo mi bàbbeeku tam wutiwaat ko ginnaaw si mu mel ni procès ci kanam waaye dafa mel ni eh, Sonko daal dafa mel ni ba léegi ndaw ñi dafa mel ni dañu mel ni dañ ko xaw a jox bopp xaw na jaaxal askan wi. waaw loolu nag moom yàlla moo ko def ci Sonko ndax eh, maanaam jug rek nit ñi topp la loolu mbiru yàlla la loolu suñu borom moo koy def ci nit loolu kenn mënu ci dara moo jël xolu jaamu yàlla yi def ci Sonko eh, xaj na tamit jeunesse bi moom la ëppee mais nag loolu noonu ñu ko koy jagleel te xam ne maanaam liggéeyu ndeyam la te it ko suñu borom may la waa ñuy waxaat it ni Sonko moom it bu mu abusé wu ci lool ba mu ëpp ba lor ba lor jeunesse bi waaw na na na boolewaat daal lépp daal boole ko wax ko ci fair play daal jàmm daal moom waaw man jàmm daal laa gis man gisuma leneen waa jàmm nañu woote jàmm rek ba ci suñu njiitum réew mi ñu ngi koy ñaan moom it na lépp nekk ci jàmm ko defee daal Sénégal jàmm rek am fi ku war a jël réew mi yàlla wax na ko ba pare ñi ñee fi nekk rek di ku nekk di commentaire mais suñu borom wax na ki ko war a jël ba pare kon nag ku ci def loo ci warta def bu ëllëgee it yaay desee sa gàcce te bu ci ay deret touro it ah loolu tamit am na lu ko gën waaw moo tax ma ne nañ nañ woote jàmm daal Sénégal jàmm la xam waaw mu ngi noonu Sénégal jàmm la xam li ko soxna ma Waly Diagne borom ndakaaru Cap Vert tabarkàlla waaye tam euh, di fàttali rek ni mooy borom ndakaaru Cap Vert euh, fi may jëm rek muy ci wàllu euh, ci wàllum seet bi nga xam ni mënuñu mënuñu toog te waxtaan ñu seeg yow saa su ne muy bunt boo xamante ni ñu bëri xam nañ ni dañ kee teg tànk. Eh, daanaka sa wax barewul sa jëf ëpp yow daanaka boo xoolee ci wàllum communication sa wax bariwul eh, daanaka jëf rek yow nee nga jëf rek nga xam eh, ñu dellu siwaat ci mbir mi nga xamante ni saa sunee dama koy wax ci taxawaay boobu tam li nga xam ne doomu aadama léeg nga gis ne tey amaana war na jël soxna wala day dem ba ci biir soo ko bàyyi xel wala mu war a jënd ndaambar muy oto wala sax war a takk soxna ñu ci bëri ba dañ ci am gàllankoor daanaka am na ñoo xam dañuy ci biir a biir tey ñu wax ni baaxul mais dañuy forcer fekk c'est trop tard xooluñu mi wàllu taxawaayu set boobu nga xam ne nag yow saa su ne doo ci dellu ginnaaw. maanaam comme ni ñu koy waxee rek euh, daanaka sëñ Mountakha euh, jamono ji dafa toll foofu moo tax nag ku naan du seetlu da ngaa xamul rek li xew ndax des fois nga ne ah man de du ma nga dugg ci ay affaires yoo xam ne da nga koy mujj rëccu parce que tamit boo ne du ma seetlu lu yàlla moo xam. yaa ngi dégg mais nag ñun maanaam comme ni ñu koy waxee rek ñun seet gi dafa nekk lu ñu doon nekkul lu ñuy mënaatu chaque jour ma wax ko moo tax nag euh, des fois nga gis nit ki war a dugg ci sëy sëy tam dañ koy seet ndax sëñ Mountakha sëy dafa doon lu doy dafa nekk diggante boo xam ne euh, sëy sëy maanaam pour toujours la moo boo ci dugg da koy seet ba pare ndax diggante mën na bañ a ànd mën nga mën nga mën nga mën nga ne damay sëy ak nit te seen wërsëg àndool su boobaa it yow mi ko jël tamit yaay am gàllankoor des fois nga ne ah xaama dem jël soxna see pour takk ko mais si kaw loolu seen seen wërsëg mën na ànd te wërsëg nag bu àndee rek sëñ Muntaxa mu neex mais nag wërsëg bu àndul du neex des fois nga gis nit ku dugg ci tamit jël jël jug rek wut daamar mu doxal tuuti daamar ga tàq wala daamar gi am problème parce que da koo xoolul parce que tamit seet men lenn ngi ci seet lu gën a am importance mooy sarax waaw seet seet la mais sarax lu ëpp lu ëpp importance la ndax sarax daanaka mooy lépp ñun ñii di ñaan dañuy ñaan mais sarax moo ñuy jàppale ci lépp. waaw nga baal ma man euh, damay faral sax di dégg nga ne yow ñi nga xam ni ñu bëri dañ koy wax boo koo déggal li nga xam ne moo di sarax su ko deful bu toggaate sa kanam nga leeral ko te day mujj jaaxle. yàgg na sarax moom heure bu ma la seetalee ma wax la nga génne ko génnewoo ko boo demoon ba ba fu la neex nga ñëwaat boo ñëwaatee sarax sa dee génn. waa parce que loolu mooy seet bi nga xam ni maanaam nit bu la gisee ci seet nga war a génne ay sarax man de képp ku ma ku ma seetal génnewoo woo sarax boo toogaatee sarax bi génn parce que sarax boobu moo war a defar say mbir waaw maanaam noonu noonu lay demee daal waaw mu ngi noonu moo tax nag euh, képp koo wax sarax tamit des fois nga wax nit sarax boo xam ni moom mën na koo am sax mais des fois nit moo dul saraxee dafa am ñoo xam ne dañoo mën a négliger sarax te tey bu ñu amoon xew bu ñu war a dem dañ koo lijjanti mais bu dee lu jëm ci sarax dañ naan ah man de naa bàyyi noonu rek fekk la war a ubbi say bunt boobu mu ngi ci sarax si waaw. moo tax nag sarax lu am importance la nit ñi dañ koy kafe nag di ko foyee mais macha allah sarax day defar lu bëree bëri waaw mu ngi noonu. jërëjëf borom Dakar ak Cap Vert yaakaar naa ci bunt boobu am na solo euh, mais nag mënoon ñu bañ a ñàkk toog ak yow tey waxtaanuñu euh, tey ci mbir mi nga xam ne muy wàllu tey xëy na mën nañ ne tàggoo yi di divorce yi divorce yi moo xam ci célébrité yi dafay mel ni bu ñuy gën a dox ci jamono ñu bëri di ko laam-laamee di ko wax euh, gis nañ fi ñaari célébrité yoo xamante ne amaana dañ ne siw nañ lool waaye gis nañ ñoo ngi naan am naam amul waaye li ñuy ñaan mooy yàlla bu mu am amaana ñu am na ñoo xam ne ñoo ngi koy dëggal mais lu waral li ni mel am na sëy yi nga xam ne dina am ampleur lool dina yaatu lool dina taxaw lool euh, nit ñi nag di ko wax gauche droite mais daal benn problème mooy euh, dañoo xool benn jamono ko bu ñu demee ba ci biir a biir rek euh, day nekk loo xamante ni daal yëngatu bi dafay bari lool ci célébrité yi. maanaam comme ni nga koy waxee ci célébrité yi maanaam ñoom dañoo nekk ñoo xam ne seen lépp dafa nekk ci internet bi seen lépp nekk ci réseau sociaux yi te sëñ Mountakha sëy moo nekk lu sacré sëy du ay foo da ngay gis koo xam ni sax day am dara ak jëkkëram nekk ci tig tiktok bi di wane maanaam dafa am bët yoo xam ne sëñ taxaar lu ñu xool mu yàqu am làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu kon nag damay ñaaxaat euh, célébrité yi di leen ñaaxaat di leen wax ni nañ moytu seen sëy yi ñu teg ci internet bi ndax nag sëy internet takku ko sëy réseaux sociaux takku ko sëy yàlla moo ko tudd mu nekk lu sacré mu tudd ñu tudd ko nag si aras koo war a sëyal par la force nga sëy moom mais nag niñ koy defee jamono ji moo doy waar moo tax sëy des fois day neex lool ñu nekk ci affaire yi di neex mais nga gis koo xam ne làmmiñam bu bon la yor mu xëy rek yàq lépp waaw ku ne am na baatin nag mais am na ñoo xam ne seen baatin taf-taf la waaw maanaam dañ lay dinañ la am lu ñu la kii rek sànni rek dootoo am jàmm ci sa àdduna waaw moom da ngay yëngatu rek moo tax nag nañu moytu daal di di wane suñu bopp di wane say sëy ba ci njaboot gi nañu dañu dañu dencaat affaire yi parce que monde bi yëpp ñoo lay déglu ñoo lay seetaan moo tax nag bu yiy yëngoo rek sa sëy yëngu xam nga tey jii boo boo ne ah diw ak diw de am nañ jafe-jafe parce que yaa ko saam ci télé bi si réseaux sociaux yi léegi nag ku ci jot day ton ni amaana ñii di wax dëgg amaana ñi di wax loo xam ne dëgg la mais daal man su ma doon may kii dama leen di dama leen di wax daal ni leen nañu nañu bàyyiwaat sëy yi fa mu nekkoon waaw fa mu nekkoon buñ ko fa bàyyee sëy bu ne day yàgg du gaaw a tas waaye sëyu internet moom lu ne nga dugal ko ci ah nii rek lay mujj de waaw moo tax nag nañuy góor góorluwaat daal tey ñaaxat nag seen bopp waa siiw du jàmmi borom waaw. borom ndakaaru kaber fi may daanalee foofu foofu moom euh, xanaa nga nga ñaan rek ndax bu ñu xoolee euh, ku ci nekk ñoom du dafa nekkoon couple boo xam ni euh, tey bu ñu waxee ni Sénégal yëpp am cofeel ci ñoom xanaa ñuy ñaan rek yàlla gën see doole def jàmm ndax moo tax ma yëkkati sama kàddu naan loolu day dégg nañ ko nag ndax am naam amul yàlla bu mu am. ah man de dama leen ñaanal ndax yàlla bu mu am te it yàlla bu ko suñu borom def ndax nag sëy bu neex la sëy bu war nekk la. waaw may ñaanal nag yàlla bu yàlla def loolu yàlla leen yàlla boolewaat ndax nag ah ñoom ñaar ku ci nekk war ngaa sédd wax yi ëll wax yi nekkoon ca commencement ba waaw boo ci ñëwee rek di nga toogaat téye sëy bi ndax am na commencement ba ay rumeur yi ma ci déggoon rumeur yooyu nag ku ci nekk ñoom ñaar war nga cee toog di ci jàngat boo ci jàngatee rek dañu mën a àndaat te kenn du ci kenn du ci waxaat waaw te ñoom it dama leen wax ni nañu nañu bàyyi daal. vie vie privée ñu koy ñu koy génnee ci ci réseaux sociaux yi waa parce que sëy bu barkeel waaw kenn du ko def loolu mu ngi noonu. Mhm. jërëjëf euh, borom ndakaaru Cap Vert nag euh, ñu dellu si nag yaakaar naa ñoo ngi soog a dugg ci programme bi nag tey euh, ñoo ngi jëm nag ci li nga xamante ni nag mooy daj dëpp gi ñu dellu si waat ci ruy bi nga xam ni yaakaar naa la ñu amoon ci stock yaakaar naa ne dafa manqué sax daanaka yii mooy stock yu yi soog a si nii jamono ji ñuy wax ak yéen ak beneen bu bees ruy bi bëggoon nañ nga leeral ñu ci li muy dox ak lu ko tax a jógati ndax ginnaaw naam am na ñu ko xam ba noppi. ah sëñ Mountakha comme ni nga ko waxee rek ruy bi moom daanaka fi mu toll nii euh, loo stoppé rek mu jeex moo waroon nag ñu indiwaat ko nii mm, changer nag tamit design bi changer lépp parce que tamit euh, comme ni ñu ko waxee rek ruy bi mooy def effet nee naa la ruy bi ma borom Dakar rek maa ko yor waaw te ku ci bëgg a xam dara na ñëw ci ruy bi en tout cas ku ci bëgg daal boo ma contacter. di nga am ci ruy bi te macha allah di nga si yëg sa bopp. ngir ci digg ah, ci diggante góor ak jigéen. waaw day dox ci diggante góor ak jigéen day defar sëy day dëgëral sëy tamit ñitt a ngi paas ay al xaalis bu bari di dem ci àll bi di dugg ci sëriñ si waa di wut pour ñu defaral leen seen diggante ak seen borom kër yi mais ruy bi moom ku ko sàlloo sa borom kër yow lay jox ndam li li maa la ko wax. kon daal soxna yi yaa ngi leen di waat beneen yoon ñi jàppoon ni jeex na euh, quantité bi jeexoon na kon amaat na. ñëwaat na. ñëwaat na jeexoon na nag mais ñëwaat na te ku maanaam daal li mu saf ka ko ma ka xam comme ni ma koy waxee rek ku bëgg xam la mu saf rek na ma contacter borom ndakaaru man rek maa fi yor bi nag. moom mel dañu gis prix bi léegi da nga ko def ay temps daaw ñu gis daanaka wala ñu bëri daaw ñu prix bi ndax prix bi parfois tam am na ñoo xam ne suñ ko déggee jaratul ñuy woote moom dañuy ñëw rek moom egsi directement. boo gisee lu tax sax euh, ma ma indi prix bi dafaa am ñoo xam ne dañ lay woo di la laaj prix wala ñuy ñuy ñuy naan la wàññil ma. te nag ruy bi li ma ci def sëñ Muntaxa yàlla seede na ni ëpp na nga jël cent 100000 francs di dem ci sëriñ ne ko defaral ma sama borom ka lii nii li ci nekk te 10 000 francs lay jar kon xam nga ne amul problème. waaw mu ngi noonu moo tax nag ma def ci prix bi pour bëgg rek wax ji daal di am daaneel. waaw damaa bëgg borom ndakaaru ak Cap nga yëkkati ko bu baax écran bi gis la moo ngoog nag waaw bu ko defee mu leer gars yi mu ngi nii design baa ngi nii bi yoon lébu lébu gi bio la solution moo ngi noonu euh, borom Dakar ak Cap Vert tabarkàlla euh, ñu ñu ñëw directement rek comme waxtu bi euh, bëreetul ci ñaari savon yi nga xam ne moom it design yi dafa changé moom tamit nga indiwaat yeneen façon. Euh, muy ñaari savon yoo xam ne dañu ne benn waaye ñaar la ñu wax waaw bokkuñu bien sûr euh, léegi ñu bëggoon nga leeral ñu tàngoor encore ñun buñ ko xamee wala ñeen jot nañ ko xam am na ñoo xam ñu maanaam savon yaa ngi nii savon ubbeeku la xam nga Sénégal comme ni ñu ko waxee rek ku nekk bëgg nga ubbeeku ku ne bëgg nga boo xëyee wa sangoo ba set foo taxaw ñu ne la ah loo laajte ñu ne la am yaa ngi dégg moo waral nag mu ni saabu ouverture bi ouverture bi mu ngi nii maanaam ku ko sangoo heure boo xëyee loolaal day baax waa ndax li mu ko liggéeyee moo tax loolu daal mu baax loo loo yóotu mu am. moom ñaata yoon nga koy jëfandikoo par jour. si ku mu neex rek am na ñoo xam ne deux fois par jour la waa parce que am na ñoo xam ne seen yaram il faut mu laaj ñu defaru waaw des fois ngay sangoo sangu ba sonn doo gis dara danga naan ax ah, man de léegi sa taay naa sangoo mais nag saabu bi moom la ngay sangoo lépp a ngi ci saabu bi te nag moom maanaam roy du nuroog piir piir baa moom li muy weccee ko tamit bëgg nañ ko xam ñoom waaw savon yi tamit ñaari pot yi mu ngi mi ngi weccee ko vingt cinq mille waaw mi ngi noonu ñaari pot yi ndax boo boo koy jël xam nga bayre tamit dafay ànd ak kaaraange munoo ne am ngaa bayre te amoo kaaraange waaw kaaraange maanaam moo nekk nii bi mooy bu kaaraange bi nduroowuñu sax waaw maanaam bii liggéey buñ la def euh, lu bon lu yàgg luñ la def même nit ku lay xool bët bu aay saabu bi ci gan nit ku lay xool ba bu aay wala nit ku lay yéene maanaam nga nga nekk ci société nit di la reetaan te bugg la ñu laal saabu bi. bi moom ñëpp a koy coow jamono gi ñaari savon yi moom. couple bi moom doy na war. waaw couple bi parce looloo tax nag. sëñ Mountakha damaa bëgg Sénégal jàmm am fi man nitu jàmm laa waaw moo tax jàmm rek laay woote. yaa ngi fii ci jàmm ji info kon mbokk yi jàmm ji info ngi noonu ak borom Dakar ak Cap Vert tawarkàlla yaakaar naa ni gis ngeen sax design dafa dem sax ba jël couleur jàmm ji ndax niñ ko liggéey lépp jàmm ji la. jàmm ji la waaw parce jàmm lépp waaw ya Sénégal daal na yàlla na fa jàmm yàgg waaw ñu ñëpp ñu ne ci jàmm su ko defee Sénégal day naat waaw njiitum réew mi sax tey bu Sénégal ci jàmm mu ne ci jàmm waaw mu ngi borom Dakar ak Cap Vert desee ci waxtu dégg ngeen tey ci kaddu jàmm rek la yëkkatee ay kaddom waaye itam boo leen xoolee background bi gis ni vert bi mooy couleuru l'islam couleuru jàmm tam ñu di ko santaat bu baax a baax a baax ñu ñëw nag fi nga xam dañ koy daane li muy daj dëpp gi moom it ba léegi si la bokk euh, muy li nga xam ne moo di dragon sirop bi nga génnee ci poudre bi génn ci sirop bi mais bëggoon nañ ñu bëree ngi jaaxle lu waral poudre bi nga xamante mu ngi mu ngi mu ngi yëngal jamono mais nga indi sirop bi tamit sirop bi moom xanaa moom moom lu mu doon ah sirop mooy mooy mooy mooy roi bi waaw sirop bii mooy roi bi roi nag moom nee nañ fu mu fu mu bëree moom mooy daan gaynde fu mu bëree rek mooy daan lii nag boo gisee li tax ñu andi ko bii mooy daj dëpp gi waaw bii moom ñàkk koo naan wóorul te man maa la ko wax fii laa ko waxee de gis nga sirop bii képp ku ko jël balaa ngaa am ñaari sirop di ko naan li nga am nga li nga bëgg nga am ko ma ne la benn benn benn kaasu attaaya rek nga jël ko ci laa la laa sëñ Mountakha du ma ci wax sax. mbokk yi neen du ci wax xam nga li ma leen waxee saa su ne ak borom Dakar ak Cap Euh, ni muy développé nee naa leen euh, moom ay waxam yëpp jëf la waaw jëf la muy dragon bu day waar euh, ni ma ko waxee muy moom laa leen waxoon poudre bi ñëw waaye gis ngeen bi sirop bi la moom lay wax noonu muy sirop bi nga xamante ni actuellement da ko indi parfois est-ce que mën nañ jëlandoo ñaar yi wala benn bi parfois ku mu neex ngay jël sirop bi wala dragon bi tamit dangay jël poudre bi ñëw jël sirop bi wala lan mooy seen différence. maanaam xam nga am na ku ma ko fi laajoon fan yee mu ni ma man de dama bëgg loo xam ni daf may jàppale ci ci ci ba ci affaire yi ma ne ko. bu la neexee nga jël ñaari bu nekkee nag dangaa faible carrément mënatoo dara da ngay jël ñaar yëpp waaw di def bii matin midi soir di def bii matin soir bu ko defee mu téye la yàlla seede na ni du du lu may wax nii ay wax la lii ku ku am problème ñëwal ci man solution baa ngi nii mu ngi nii te benn la fi borom Ndakaaroo ko indi waaw mi ngi nii waaw benn la fi borom Dakar ak ko indi muy Dragon Sirou ñëw na dellu si waat euh, ci lépp nag ni ma leen koy waxee moom euh, ni ma koy waxee xëy na li ma koy waxee saa su nee borom Dakar ak Cap euh, jëfam moo ëpp li muy wax. kon nag ñi ci jot a jaar xam nañ ko bu baax a baax boobu ba léegi muy dox ci ay jamono ay at nag mu commencé feeñ nag ngir lu baax ngir mën ko jox askan wi borom Dakar ak waxtu bi moo ñu dab. wax dëgg yàlla bég nañu santaat nañ la bu baax a baax a baax looy tàggatoo yaakaar naa ne saa soo ñëwee rek indi luy sedd suñu xol design bi ñëwaat rafet mu neex a xool looy tàggatoo. ah maa ngi tàggatoo nag mën daal tàggatoo ci jàmm rek man daal comme ni nga ko waxee rek ubbee nañ émission bi ci jàmm may tàggatoo yi ci jàmm nañ woote jàmm daal waaw Sénégal tamit yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm sax waaw yàlla na fi daal lépp suñu borom lu mu fiy dogal rek mu nekk jàmm waaw man daal jàmm laa bëgg waaw mu ngi noonu jàmm daal lay tàggatoo tey waaw di nuyu tamit. sama sama sama xarit yi nekk ci diaspora bi waa di nuyu waa Paris ñoom soxna Maguette soxna màgget jàllo mu ne Paris muy nuyu sama sama càmmiñ yi nekk pari sama gambien itam du ma leen fàtte waaw sama gambien yi moom mënuma leen a fàtte waaw may nuyu tamit euh, yaa ngoone jàllo nekk ca Gambia di sama yaay ju baax a baax a baax gën kenn du moom ci réew mi waa bàyyi ma kenn nag waaw mu ngi noonu <laughs> mbokk yi borom Dakaaru Cap Vert ngi noonu ñu di ko santaat bu baax a baax a baax waaye tam euh, benn rek euh, mbir la ñuy wax ci mbir yi ginnaaw boo gisee parfois produit euh, di xaw di manqué dëgg la naam askan wi ñoo ngi daw di ko jël si waaye am na nag benn secrétaire am xamante ni moom dégg nga maam sirop bi ak pëndax dragon bi ak savon bi. yaakaar naa lu mu ci liggéey benn yenn tamit day jël teg à côté ndax da ko soxla loolu moom tam waaw dañ koy sant bu baax a baax moom suñu secrétaire boobu mbokk baa ngi noonu 78 la 634 15 06 wala beneen numéro bi 77 234 08 17 mbokk soxna Mame Waly Diagne la borom Dakaaru Cap Vert di ko santaat bu baax a baax di ñaan allahu buur bi subhanahu wa taala doole guddal fanam doole ko defal tawfeex ak taysiir ak najaax defal ko saxat daare ni ki barke yonent bi sallallahu alayhi mu yàgg loolu di jëflanteeg askan wi waaye saa borom itam di ko defal ndam mbokk yi ni ma leen ko waxee rek moom daanaka euh, jëf la waxam bariwul euh, ku ñam produit yi daanaka yow yaa watal sa bopp ndax ñi ci gaar ñëpp xam nañ ko bu baax a baax ñi ñi koy booleel itam yaakaar naa ñun amuñu ci gàcce kon sant nañ la bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox dig daje ci wàllu éclairage bi caméra bi euh, ci wàllu présentation bi Mouhamadou Lamine Muntaxa di leen jox dig daje yàlla mi borom jàmm téet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm na yàlla saa borom bi doo li ñu defal jàmm di leen wax salaamu aleykum wa